muhammaduni samadi xasida ci boppam moo yëngal géej gi ba keroog géej gi ni fer daa di taxaw yaa bër yaa ahla la yaa ahla baxri xuuju li bari baxri saxaayi xasida boo ko déggatee moo yëngal Cheikh Tidiane Chérif yëngal Abdul Xaadir Jilaani yëngal gaa yu baax yëpp ba nu bokk ñoom ñëpp nangul ni Serigne Touba mooy xaadim rasul hadiyat yi kusi bilaa xasida boo ko déggatee mooy tàgg bi nga xam ni fa la jaare rasulilaay ba Omar Ousmane Aliyun ak saxaabatul muqarrabiin ñëpp bokk jël lañu yoroon jox ko borom Touba. fa wattu amri li muqi umri ma ahlu badrin biram tiraa yi xasida boo ko déggatee mooy xasida mooy bind yi nga xam ne moo yëngal jibrilul amin ba moom ci boppam yowmal xiyaamatul akbar feek Serigne Touba ñëwul du du wulli mukk laafu laafu wuru su marjaana xasida boo ko déggatee mooy bind yi nga xam ni foo ko jànge aras day jaayu kursi yi di jaayu ba keroog ngay pare foo koy jànge sëb dund dañ koy bloqué boo paree loo des yëpp dañ koy rafaatale sëb dund moo waral ngay gudd fan isa katabtu tasahar sur baaqi wa sabaxat malaykati baaqi xasida boo ko déggatee mooy bi nga xam ni yowmal xiyaamati lakbar buñ fa yeggee biir àjjana xasidab Serigne Touba yi leen fay béggee uurul ay nii nii may wax ak yow xasidab Serigne Touba yi lañuy béggee laaj ma fu ñu ko bind haraba min kitaabati mabxuuru wa bi xuruufi tata annaa xuuru xasida boo ko déggatee mooy li nga xam ni fa la Serigne jaar ba yàlla may ko lu mu dootul may kenn laaj ma fun ko bind lay yaqaadallaahu maalam yëkku ni wala yëkkunu abadan li mumkini xasida boo ko déggatee mooy bind yi nga xam ni fa la Serigne jaar ba alxuraanul karim feeñu ko mu rafaate la ko def ko jëmm muy jëmm am bakkan am nopp di dund mel na doom ci Serigne Touba di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké xasida boo ko déggatee mooy bind bi nga xam ni fa la Serigne Touba jaar alxuraan feeñuwaat ko ni ka nekkal gi nga ma nekkal faf naa la nekkal kon nekkal ma ma nekkal la laaj ma fu mu ko bind kitaabu rabbi kaane lii wakkuntu lahu walillaahi ba yi saxantu xasida boo ko déggatee mooy bind yi nga xam ni fa la jaar ba yàlla may kalam ka may yëpp yaa wallaahu na ko yàlla yan suru nii xamal na ma wal xalqu lépp lu mu bind tat ba u nii ma topp fil ci géej gi wal baxri ci suuf si daa naf in damay jëriñ bilaa dëriñ te duma lor xasida boo ko déggatee mooy bind yi nga xam ni fa la Serigne jaar ba yàlla ci boppam lu Cheikhul Khadim tax Serigne Touba rañaan rasulilaay dafa rañaan Serigne Touba rañaan laaj ma fan la ko bind maraami minal mawla ataani bila asan bi jaay shafil alamina muhammadu xasida boo ko déggatee fa la Serigne jaar ba tagg fi yàllay borom jaam ñi kenn mësul tagg yàlla ku إن الجود والأولى والجلال مالك الملك sil udaa wal kamal ci biir xasida yooyu nag la ko rafaatale may ko sëñ Modou Moustapha may ko Alaaji Fallu may ko Cheikh Abdou Lahat may ko sëñ Abdou Khadre may ko sëriñ Saliou may ko sëñ Moutada may ko sëriñ Soybu may ko sëñ Abdoulahi may ko sëñ Ibrahima soxna may ñëwagul soxna may kabir ñëwagul soxna astuwaala ñëwagul soxna astu gaawan ñëwagul looloo ko may maam Cheikh Anta moo ko may Cheikh Mandumbe moo ko booleeg Cheikh Ibra xasida boo ko déggatee mooy mattu bi nga xam ni moom la Serigne Touba jàpp tagg rasulilaay ba gaa yi baax yëpp yowmal lakk akbar buñ fa yeggee bay dem jannatul firdawsi am na jëmm joo xam ni ci xasida yi la ñu ngi koy wax si ndiir day soppi jëmmam nekk ab échelle xaside rek la Serigne Touba jaare ba Abdul Xaadir Jeylaani yowmal qiyaam moo koy bàkkal xii nii lii mooy xaside ci gàttal